bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai walmursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax ci topp gi ngeen ñuy topp ci ndénkaane ayu bis gi di bég lool ci bàyyi xel gi ngeen koy bàyyi xel ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu ci ñi nga xam ne yastamiuuna al xawla fa yattabiuuna ahsana loolu mooy ñi nga xam ne buñ déggee ay wax tànn ci la gën a rafet yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la ñu suñ borom roy loo moom itam lépp loo xam ne amal nañu njariñ ci suñu dund mu sonne ko lool taxawe ko ci xamal ñu ko ba jot ko ñam jamonoon teeloon ñëpp keroog bañ ca jotee mu taxaw ne ndax li ma yàlla yónni woon jot li leen ko ñu ne ko jot li nga ñu ko kay mu ne kon borom bi subhaanahu wa taala seedeel daal di wax ne ñi nga xam ne ñoo ko fekkee nañ ko jot ñi nga xam ne fekkewuñ ko jotlante boobu moo ñu ci jotale ñun tam ñu di ko jël di leen ko jotliwaat ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu ñu daje ci ak ngërëmam mbokk topp Ali Imran TV suñu ndénkaane ay bis gii day delluwaat ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye delluwaat itam ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam lan lañu jàngal ci buñ demee ba war a tëdd ñu war ko léemoo bu ñu yewoo itam lan lañ war a ñaan ndax léeg-léeg yu baree bari ci ay nelaw lay dale nit ki gént yoo xam ne gént yu jaarul yoon la jaare fa yàq bisam ak li mu yendoo wala fanaanee mettit yoo xamante ñàkk léemu dana ko yóbbee aji tëdd ji moo tax xadis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ko wax mu nekk ci ñaari saxiix yëpp saxiixul buxaari saxiixul muslim xusayfa fa li ko nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu masaana nam ma nelaw maanaam bu masaana bëgg a tëdd nga xamante ne mooy ñun dem nga ba bëgg a tëdd nee na daan na ñaan wax ne bismika allahumma amuutu wa ahya bismika allahumma amuutu wa ahya ñaan yu baree bari la yoo xamante ne ñëw na ci dundu yonent bi alayhi salaatu waaye mënee suta def yépp ci ndénkaan li ndax kon mu gudd ñu indil la ko benn par benn boo yoree big te di ma topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na def bu masaana dem ba war a tëdd buy léemu ñaan yam daan ñaan gii daan na ci bokk bismika allahumma amuutu wa ahya bismika allahumma amuutu wa ahya bu masaana yeewu ci ay nelaw da daan sant boroomam wax alhamdulillahi alladi ahyaana bahdama amaatana wa ilayhi nusuur alhamdulillahi alladi ahyaana baxdama amatana wa ilayhi nusuur kon suñu ndénkaane tey ñaari ñaan lay indi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ñaan buy tëdd ak bu yewoo du tee nag danañ la indil yeneen yoo xam ne ay ñaan la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle na ko ci ki waaj dem tëdd mu ñaan ko digle na ko ci ku bu yewoo ak yi muy dajal ci àddunaam yépp kon ñu jàppaat ñaan gi nga xam ne moom la ñuy jël tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle ko ci ki nga xam ne day bëgg a tëdd mooy boo demee ba dara desul lu du tëdd nga wax bismika bismika allahumma bismika allahumma amuutu wa ahya ñeenti baat la defe naa yomb naa jàpp ñu ànd maag yow baamuwaat ko bismika allahumma amuutu wa ahya damay faral di wax ne buñ lay jox ay ñaan wala yu demee noonu buñ ko waxee benn yoon nii yem ca képp soxlaatul nga naan ñaari yoon la wala ñetti yoon la wala juróom benn yoon la bu ca loola amee rek dañ ko cay toftal ñàkk caa am moo tax ñu yem ci ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na ko def ma waxaat la ko yoonu mujj wi bismika allahumma amuutu wa ahya bu yewoo daan na wax ñaan gi ma wax léegi mooy alhamdulillahi alladi alhamdu lillahi alladi ahyaana bahdama amaatana wa ilayhi nusuur loolu daan na ko wax bu yewoo mooy maa ngi sant sama boroom mi nga xam ne moo ma dundal maanaam moo ma yee ci ay nelaw ba dama amaatanaa gannaaw bam ma rayee gannaaw bam ma nelaw nelawloo nangami waxtu yoo xam ne mënoon naa faa jaare bañ a waat ndax am na ñu nelawoon ñoo xamante ne yeewuwaatuñ wa ilayhi nusuur moo ñuy dekkal ëllëg yow mal nelaw yu rëy yooyu nga xam ne mooy nelaw yi dee moo ñuy dekkalaat ñu war a dajawaat ci kanamam mbokk yi suñ bindu tey ngi noonu ngeen ñuy topp ci Ali Imran TV ay bis gu jot ñu indil leen benn ndénkaan ñëwaat ak yéen ci beneen jotaay boo xam ne taxaw seetlu lañ ciy def incha allahu taala yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu boole taxawu yal nañu def ñu dégg suñ diine musal ñu ci say ayu saytaane musal ñu ci ayu àdduna musal ñu ci suñu ayu bopp sant ngërëm ñeel na leen ñu dig leen ay bis gii di ñëw daje incha allahu taala